Ibrahima Fall mom dafa nekkone dañu demoon ba nekk famille ak GPS bi hein euh ak garde yépp tamit euh, surtout Ibrahima Fall vraiment bu ñëwé fi dañuy tok di waxtaan ak ñëpp dañuy tok waxtaan di kaf di ree je me rappelle bu mu ñëwee euh, gars ñu ngi doon wax ni euh waji légui nouveau marié la ñuy kaf fofu di ree xam nga pour wonné ni euh dimension bu ñu am à chaque fois ñu nekk ensemble ba bu ñu ñibi ñun bu ñom bu ñu ñëwé moy sécurité ak euh, technicien yépp

euh, a xam situation bi nu mu évoluer parce que non seulement ñoom bu ñu fu ñu nekkoon amul woon benn hôpital hôpital bo xamné ne digne de son nom parce que hôpital Nioro bi euh danaka euh équipement mu fa amoon mënu woon jël en charge ñeneen ñi bo xolé sax décès bi bu e bi euh hémorragie interne moo ko donc euh, ça montre que vraiment hôpital bobu évacué wu ki kiiwul amul les les les équipements nécessaires pour ça donc lool da ci baax sax ñuy soññ suñu.

Nous avons les premières euh, prises en charge peut être que duñ duñ am les de décès unions ñu enregistré. waaw Ibrahima Fall vraiment un type spécial pourquoi nous avons un type spécial parce que le professionnalisme disponibilité une sympathie Je suis très heureux de jàpp ci pourquoi parce que tout le temps sous président ñëwee fii da à défaut de ligue, bu muy def ak nous fait. koy fait ak jot bam mu ciy def ak amour bu ciy def loolu vraiment man je dis que y' a pas plus professionnel que lui que ci man euh, cadre yi nga xam ne ñoom laa jot a gis quoi mën na am nag waaw c' est pas parce que li lii di am moo tax ma koy wax parce que dama man mi personnellement dama ci jox benn anecdote mooy maanaam ci meeting bii nga xam ne moom la ñu amaloon le le 30 à un moment donné yéegoon na ci kaw ay grava ci benn kër yi nga xam ne man foofu laa nekkoon di noppalu. il est très professionnel très très très professionnel amna lo xamné xam ko mais do ko mun wax ci micro mais vraiment euh, man balaa des yom sax ngi doon wax si professionnalisme Ibrahima Fall ndax luma ko témoigner vraiment euh, di gis ni vraiment engagé na si parti bi comme ñun ñëpp nu ñu engagé c'était c'était quelque chose quelqu'un vraiment de de très très engagé. amna ku ci victime ki ngay ki ñuy wax Ibrahima Fall Amn'a ben message bu mu jotta def peut-être boo leen xoolee sax ci live bu mu doon def mooy bu ñuy am euh, problème yi fé au niveau de de l'aéroport mu ngi doon wax ni mom bu daano sax dina am yenen patriotes yi nga xam ñom ñoom jël flambeau bi combat bi mené ko jusqu'en 2024 donc message boobu laay réitéré waat à tous les patriotes du monde ak du Sénégal ñi xam le combat continue ñi déwuñu pour dara dañoo dé pour une une noble cause jàlle ñëpp au préalable pour parce que du Ibrahima Fall kese Ama Ndaw ci la bokk ak Moussa Camara tey patriote yëpp ñoo am dëj di leen jaale te vraiment di leen masawu. changer suñuy comportement tout le temps parce que c'est mun naa ne lu mooy nit quoi nit da ngay am comportement bu baax par rapport ak sa sa prochain boo ko deful après bu leneen xewee doo am ay série yu rafet même si gars yi mun nañ la série mais yooyu noonu ay kii la quoi pour euh, jéem rafetal mais boo xoolee mun naa ne Fall. moom depuis départ am man depuis 2017 bu muy ñëw fii laa ko xam. yàlla na yàlla may xolu muñ ñun ñëpp ñu muñ ko di leen ñaanal surtout parce que ku dee amoo li nga koy li nga koy defal lu dul ñaanal ko yàlla na yàlla xaare àjjana yërëm lim ñoom ñëpp waaw parce que ñu di di gën a euh, motivé wu parce que ñoom défendre la cause lii dañuy gën a sas ñun ñëpp ñu xam ne yóbbu projet bi comme Ibrahima lu ko waxee d'autres patriotes porteront le combat. Nous, on va porter le combat jusqu'en 2024, Inch'Allah. Moi, nous gagnons, c'est des Sénégalais. Les Sénégalais d'abord. Comme moi, le président de tous les Sénégalais. Donc c'est c'est normal tamit moom tamit mu kii ay quoi parce que au fait euh, politique euh, c'est bien laps de temps quoi un laps de temps donc après la politique c'est l'être humain c'est ce que je veux dire. parce que je nga tey même suñu fa divergence mun concurrence mais na nekk concurrence bu sel mais tey dafa am lo xamantene tay ñun à défaut de même euh, euh nous tudd bokk ci ay parti politique dafa am lo xam ah, après tout on est des humains quand même donc nit nit la tay ñu nekk fi ñu nekk feulé Sénégal moom mo gëna am solo lépp être du passé wala être de la paire wala benen parti amul solo tay dafa am lo xamantene ñu gëna am solo mooy na Sénégal tay na Sénégal mëna ñong Sénégal mëna a baax mo moo ñu am solo képp ki nga xamantene amna lu baax ñu félicité ko képp nga am ne am na safaan tamit ñu boole ko ak ñoom parce que loolu mooy tax suñu réew gën a mun a dem ci kanam loolu mooy tax aussi xelul gën a tàppe xelul gën a doon benn te solo boobu mooy am tey lépp lu ñu mun am te jàmm amul dañu wóor na loolu ñuy am noonu même su doon or la jamaa la ak zircon ak lu mu mënti doon te nekk amuñu ko ci jàmm moom safaan rek lay jur quoi li gën am solo mooy ñun li ñuy woote mooy nañ fexe ñun ñëpp ñu boole nekk benn malgré la divergence malgré concurrence ñu am mu nekk concurrence bu sen te képp ku ci am mu doon yéene bu nga xam ne yéene bu sell la bi nga xamante ne buy yóbbu Sénégal ci kanam buy tax Sénégal ëllëg ñu ne ah Sénégal de mooy réew bi nga xam ne bokk na ci réew yi nga xam ne moom la ñuy gën a kañ ci àddina bi loolu mooy suñu